dund nañ lu gina metti yow li nga dund li nga xam taxul ñu uus yaay waye dañ xam li leen war seen digante ñom ñu diko def demale ko fa understand gis nga li ngay wax non ci alxuraan lolu yalla moko wax ci alxuraan lolu xamna ko lolu dama ko xam motax bima amé ñika ñika su suma yaay la ñika jublu bala may dem fenen ci aduna suma yaay nom mo nom wan lolu man dama ko xam ba jéxal ko tak yaay duñ ko fay baay duñ ko fay waxuñ waxi fay waye ki nga xamantene su fekke jambour sax nga dajé ci mbedd nga may ko dalasi daf lay wax jërëjëf waaye sa yaay bi nga jur joxuloo ko dalasi na jox ko ay millions spend ko ngir mom. koku jog di laa pour toroxal la man tam dama am jabot man tam wajur la yow mi su fekkee benn doom la sax waaw dégg léegi sax comme du dee nekk intention yi yaay pour mu liggéey doomam wala mu def ko lu bon wala lu soxor waaye léegi léegi yaay bi comme sistas ngi invité jabar bi nga taka ñu ngi ko iñaanee yooyu yëpp daf a tax tamit ba nga xam ne yaay bi dina def loo xam ne warut sax sa diggante ak moom waaye yëpp tamit yow da nga koo understand rek comme ni ma ko waxee rek diggante yaay ak doom dafa am aaxa sa sistas yi moom ñoom waxuma leen kii suma yaay ñemeetuma ko man man ñemeetuma suma yaay si aduna yow ki la jur ki la wara jappale def la lii jàmbur kooku man kii mënatuma moko ñeme waat neeku dama ko bañ de neeku dama ko bañ dama ko ñemee tut fit bobu la amatu dem tok ak gaynde wala tok ak ngandi maami jaan anaconda bi gina a jaan mu la gina a ni suma yaay wa lol de moom metti na mo <laughs> wa dama ko ñemee tut dem ak tok ak anaconda di nan ataya ah wala gaynde abako bu hiif bële la gina a ni ma toogaa suma yaay because koku mo nek my number one in my life ma bet suma life ngir moom léegi kooku ñëw def na di wax rek suñ la dooree fi nga war a dew laax ñooñu suñ la dóoree fooy dem fi nga war a daw laaxatu ñooñu la fan ngay dem léegi loolu la laajte léegi fan ngay dem na ma nit tontul lool suñ la dooree fi nga war a dew laaxatu kooku dóor la yow fan ngay dem kii ñemeetuma ko because man man nekkul waxi sëriñ de man dafa am ñu si bari moom moo ko wax si làmmiñam ba pare man dama bëgg mané limay wax yépp yépp yëpp dama né na ñëw na ñëw ñom ñu wéddi ma man dama bëgg kuma ma ñu jaakarlo nga wéddi ma man kuma ma la laa bëgg waaye yow yow yow sa bopp yow sa bopp xam nga né sa yaay du ñëw fi di wéddi wante ak yow kon sa sister fi rek ñu mëna a pour téggi tuuma na ñëw ñu wéddi ma man kuma ma lool la bëgg way nekkut ay waxi saaga ay xas man lool ma ko wéddi ma wéddi laa bëgg kuma ma xadi merci euh mohammed obel sa micro lo bëggon doli Kali euh yow sa numéro sa dama kaa perte après dinaa la envoyé message Californie waaye bi nga indee laaj bi benn tey princesse ñëwatul de xaw ma priti ah bàyyil dina ñëwaat laaj bi daal def naa ko fi man damay samp Kali man li ma si mun a dolli mooy. waaw kii si kaw lu mu wax. Eh, naar bi naar bi defal demande. Mhm. kii si kaw lu mu wax. waaw man lay waxal man daf ma arrivé man lu tax ma daw dem jënd ji feneen am na lu li ma lay wax nii lu mu génnee si këram lu ko gën a yées man ki ko dindi. dama ko jëlé dëkk ak dëkk xamul sama kër fu mu dama ko indi bé ci bir kër gi ñëpp dañoo taxaw mu né gas leen ñu gas di yëkkati gas leen ñuy gas di yëkkati gas leen ñuy gas di yëkkati te ki ko def Duma fi wax kan moo ma ko def mais ci bir kër ga la te dañ ko jappo jaxaram comprendre kon kii ni si kaw lu wah wax man dama la 100 té lu mu wax si walu dëmm yi man topo nañ mu né dañ may fayé bor lu leer la la wax mune dañ may fayee bor amana sama bidou mo leen upp doole rek dem be lu waron arrivis man arrivis sama jabar genn aduna lu leer la wax li ki wax ci kaw lu wér la man lima la ni sax ni mo ma ko man kiko dindi tamit mu ngi dund dekk la ko jele indi ko ci dekk bi mu ñu xamul dekk bi fu mu féetewoo dafa ñew duggu ma ne ko kër gaa ngi nii moom day taxaw benn place mu ne leen ne gas leen bërëb sangam ñu gas génne gas leen bërëb sangam ñu gas mu ne dem leen si waañ bi maire bi fu muy toggee ñu dem ndekete chaque jour daan naa am ak problème ak sama yaay te kenn comprendre bi gasee ñu ne ko pot bi tëj leen ko ñu tëj fekk te pourtant si mu ngi si àll bi de taxu fee bi nga ko gasee dindi ñu vérifier am na téere bu nekk si biir waañ bi saa yuñ taalee xal kër gi jaxasoo maa moo tax man lu tax ma dugg fi mooy kii dafa wax ba pare waxalaale góor yi bari man daf ma arrivé du jàmbur de daf ma arrivé sama fi may wax teg na deux ans trois ans ma feebar munu ma munu ma dox hôpital yi ñu ngi fii tukki naa dem naa pour faju kenn munu ma faj fan yi laa wér maa ngi nii damay dem fu ma neex fu ne nii te dañ ma ne ko la dañ ma yeneen feebar la te ndekete yoo dañ ma ko def te pour maa ngi nii di dox normal moo tax ku la ne réalité Afrique nekku fi danga comprendre lu xew am na yoo xam ne man ma ne la ki ma ko def du ma taxaw si live di ko wax amaana bu fi xam na ko lépp dañ ko filmer mu ngi nekk fi te li ma gën a jaaxal ku ko maanaam ki dindi affaire bi dekkul si dëkk bi. musul xam kër fu mu këroo xamul kër ban côté la ne moom dafa ñëw si taxaw si bunt kër gi la taxaw mu ne dem leen ngeen gas bërëb sàngam day joxoñ dem leen xam nga bu doon moom mooy gas ñu ne dafa am lu muy dugal mais dafay taxaw mu ne gas leen bërëb sàngam fi may waxee yow nii sant yàlla wér na sama rakk ku topp si man feebar na fi tëdd yóbbu ko hôpital amul bu dul hôpital jënd fi nga ko dugal mais fi nga ko yóbbu mënuñ fee ba trouver solution. mu ngi nii doog a tamit nee naa la man ñàkk naa sama jabar 2006 ku ma ko def soriwul taxawu na carrément mu ne kii dañ koy topp moo tax kii lay dëgg la lu mu wax man loolu rek laa am lu mu wax. jërëjëf jërëjëf Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam euh, sëñ Ablaye Diop Xaas bi nga sampee kër gi loo bëggoon dolli. Mhm. sëñ Ablaye Diop bu dee yaa fi bu dee tëddoo. waaw Kali. waaw loo bëggoon dolli si luñ waxtaanee rakk ji dugg na dooy na waar yéeme na ngi wax de bisimilah. mais li ma ci jaaxal <laughs> Kali li ma jaaxal laaj bi moom tey fu la dugg ci yaram bi. Ah, Kali sëñ bi sëñ bi nag sëñ bi yaa ma seetal nag yaa yow del del del see laaj bi rek. <laughs> waaw moom kay xam xam nga ni bañ ma ne ana laaj bi génne naa ko xam nga ni laaj. France bi nga non <laughs> non dëgg la. xam nga ne bu doon Sénégal moom bu ne ñu ngi seen laaj mais France xam laaj bariwul mais nag am na solo mais li ñuy faral li ñuy wax rek mooy euh, yal na yàlla defal ñiy seetaan live yëpp jàmm yàlla musal leen muccal leen ci barke yonentam mhm. yàlla dolli leen sutura waa ji ci kawit yàlla delloo si xelam macha allah dafa am ndaw si mujjee dugg nag wax na wax ba am solo xam nga kali dina am yenn yoo xam ne xajul ci bopp bu mhm. amul ko dimbali rek maara day taali rakab bi dugg it ñu koy wax ni rek mbokk mbokk la xam nga kali ñun ñi ñëpp amul kenn ci ñuy wax ñun ñëpp ku ci nekk da ngay wax rek sa digganteeg sa borom mooy te dañoo wóor ni loolu amul waaye mënuñoo joxeñ waat ni yàlla yit ni loolu lu existé la ci ñoom déedéet du lu ñu waat lu ñu xam lu loo xam ne dañ koo xool ndax waa ji wax na muy lu leer nag ñu dégg ko ci nopp rakk ji wax na ak waxee xol génne li ci moom wax na ko waaye di la leeral rek ni ça veut dire ñun côté bi ñuy waxee ak sa live bi li tax mu am solo mooy loolu lu am la lu existé la te man xam naa ni nag bari na Gambia loolu moom wóor na ma. si mooy lekk nit am na. non nitu guddi. waaw nitu guddi mooy waaw waaw xama xam nga nitu guddi maanaam ba lekk ni maanaam par exemple gis nga a général boo déggee baatu nitu guddi maanaam li muy soxla ci nit ki rek loolu moo ko intéressé ñii dañuy naan deret pour dund ñii di jël ci lu ëpp solo ci nit ki mooy par exemple dañ naan xool gis nga ni ko ñëpp di njëkkante maara day taali mais waxewuñu juton wu ni par exemple waa kër waa ji loolu lañu déedéet waxewuñ côté boobu aussi man dal limay conseil waji du mo ngi deg dégg kari cheikh bi na nga def. Mm-hmm. hmm mang lay fay seigne bi mang lay fay. ba yaa ci jambu ba santa yalla alhamdullilah bima yalla woné affaire yi mom suma yaram tànn na ma sha allah alhamdullilah rabbil alamin. Mm-hmm. waaw kay d' accord naa. xam nga xam nga man Gambie min na fa lol te xamna ko bu baax xamna xam nga lol xana deug la non non yow sax ma gis nga man yow sax contact na la ba tay pour ñew ci yow faju waaw kay waaye jot si yow jafe na torop torop torop torop torop xam nga kali topp naa la ñetti at ah. wala ñeenti at waaw loolu dëgg la noppale ko xam nga kali mm-hmm. gambi ci boppam bi yeeyaa jàmme wootee mboolem ku fay faj yàlla dogal na maa fa jëloon pay kon mën naa wax ci gambi mm-hmm. euh, cheikh bi xam nga am na ci loo xam ne bu la ko yàlla wanee rek am na lu mu feeñal waaye man damay waxtaan en tant que ak yow di bëgg waxtaan ak sa rakk bii nu mu mm-hmm. sax euh, péréti péréti na nga def Maymuna Jaxate laa tudd. Maymuna na nga def. yaa ma rek. waaw Maymuna ana ana kii ana sa sœur bi moom. déggu ma. sa sœur bi nekk Espagne ani mu na dëgg la dëgg si live bi. Mhm. sama sœur bi moom ah. ndaxam jota amul. Ah, moom mu ci teral sama yaay rek sànq mu ngi fi woon. mu ngi fi ah. woon waaye nekku fi man maa koy xool online waaye nekkut online. man mang fi mom su fi nekuté man maa ngi fi. am sa yaay lan motax mënul dugg. aha mané la suma yaay amu jotu lolu suma yaay su fekkone ki kessa kese la jur kon mu torox way juru ko heureusement juru ko mom kese. Dona si. waaw. waaw déglul sëñ bi peut may mëna naam. na nga def yaang ci jamm bu baax. Ah, sëñ bi dem jamm rek ka xam nga sank dama dégg ndaysan nga nga sédé ben wax bo xamni ci sa nga ni kër gi. loola mu wax am na moo ko jënd jox leen. waaw. muy wax bu rafet. mag ji it ma dégg biñ ko bëggee ñëkk yóbbu daf lu dem sànq defarul waajuram kër gu mu dëkk muy lu rafet. ça veut dire gis nga kali kenn sàkkuwul juddoo fenn. yàllaay def lu ko soob ak lu ko neex ak ka mu ak ku ci nekk fa ngay juddoo. waaye li mat a sante yàlla dafa bari kali. cheikh bi ci kaw dund na lu mettite yàlla génne na ko. fireti bokk ak a bokk kii ndey ak baay yàlla boole leen ca aras xam ni a sàkkul woon nii damay bokk ak cheikh bi cheikh bi sàkkul woon ni it maa ngi Maymuna ñooy bokk yàlla moo ko soob mu boole leen ca aras kon boole boobu mu leen boole amul kenn ku mën a day exemple dafa wax wax bu am solo bu naawee kii naaw bu kii naawee kii naaw parce que par force ay mbokk leen te coow lee bari ku ne xol bi naqari mais tey ku ci déggoon sa moroom ni musiba bii dal na ko wallaay soxol du neex kali cheikh bi ci kaw comprendre naa ko bu baax a baax a baax a baax te li ma koy ñaan incha allahu rabbi kari sa live bi am na solo. Mhm. gis nga xam nga lu bon ci live. dëkk di xuloon xulonte xulonte xulonte ba jeexee ci xulonte solution amul yàlla nañ ci yàlla musal. Mhm. parce que temps amul kon bu boobaa ñun duñ fi toog. cheikh bi wax na lu ko metti lépp génne na ko. may mhm. Maymuna wax na lu ko metti lépp génne na ko waaye Maymuna. naam. ndeysaan nit bu baax nga waa ji nit ku baax la. damaa jàpp ñaar rek moo leen dal. par exemple kii dafa am lu mu lu mu dund ci àdduna mu metti lool ci maara day taali te amaan na loolu mun nga cee bañ a yëg dara de bay mu na mm-hmm. sa waajur it mun bu jigéen it na cee bañ a yëg dara de moom loolu des ci boppam parce que nit dafa am lu xaj ci moom am lu xajul ci moom mm-hmm. bopp am na ci loo xam ne bu ko yenoo rek wallaahi àttanatu ko mm-hmm. te nii rek la mën a def pour mu génn waaye nag dañuy olof dafay wax ni nag rootiwaat boobu ñuy wax nag kali mu ngi door a jot te ci laayifu kali bii la jot mooy jàmm dafa gën Kaliphone Kaliphone nit ku baax la parce que li nit ku baax mooy waa ji mu gis nga def demande mu dugal la solution moo Kali def ko doo nekk li fi xew yépp metti na wax ji yépp bari na waaye man de li ma di ñaan xam nga man samay mbokki Gambien nga Kali xam nga ni man sama taaw Gambie la juddoo sama taaw bu góor macha allah yaayam Gambien la hmm. kon xam nga ni man Gambie fa mot kay cheikh bi hmm. déglu nañ sa wax li nga wax yépp dégg nañ ko déglu nañ li nga wax li la metti lépp ci sa waajur waaye santal sa boroom ci lépp loo xam ne tey defoon nañ ko mu nekkoon njàkkare ci yow yàlla dindi na la ko ba mu set waaye nag da ngay jëlaat loolu lépp nag nga gas ko ba mu xóot nga daal di suul. xam dégg nga seex bi. yow laa di xam nga lu tax xam nga lu tax lu nga war a sante loolu yàlla. ndax ah. dal na ay nit tey nettali wuñ ko ñu ngi ci biir bàmmeel bëgg leen ko nettali lu mënuñu koo nettali. waaw waaw santal sa borom ba mu la dalee ba nga man koo nettali. yaa liggéey yëg toj nañ liggéey beek waa santal yàlla am na yoo xam ne yow liggéey nañ la am na ñoo xam ne liggéey nañ leen def leen ci biir bàmmeel ba ñu wujji seen borom te xamuñu dañ leen a liggéey foofu la ñu xamee ni nekk dañ leen a liggéey kon santal yàlla bi mu la koo yàlla wanee waaye yàlla du la won ba pare na ngay fayantu waat ak say ak waajur bul ko nangu dee nga déedéet da fa du feeyu sax de comme maanaam comme ni nga ko waxee rek comme ni nga ko waxee dafa nekk li nga xamante comme lu betta la antaluma ko ko que ki nga xamante ne comme li olof di wax la may la fi ñu la fi suñ nga war a daw la ñoom fooy dem man loolu moo ma ba pare waaw <laughs> ba pare ba pare bi ma génnee affaire yi dama dama ne suma yaay pour ñu waxtaan si mun na du ma si wax dara lii d'accord na waaw d'accord naa mu na may ma tuuti rek xam nga d'accord naa cheikh bi ci côté boobu nga wax da nga ni sa waajur kaa ñu waxtaan si mu ne du ma ci wax wa ku la wax nii paaka bi la wokk xuuriwul sa waajur. ku wax. maanaam paaka bi la wokk est-ce que xuuriwul sa waajur xam nga dafa am liggéey yu bon. waaw dafa am liggéey yu bon yoo xam ne xam nga man seen seen seen départu live kali li may ñàkk ñàkk jot dara rawuma ci. xam nga lu tax xam nga dégg nga mu ne ñetti at mu may woo jotuma. Mm-hmm. Gambie dèjà bu ma fa demee yàlla mi ñu tiim. Euh, mën nga nekk Gambie sa ñëw fa ma nekk du tax ñu gisante bët mais Kali dafa nekk sama nitu bopp. Mm-hmm. ba ci lu mu nekk rek maa nga ca. bi ma ko waxee laa ko audio ma ne ko sëñ bi soxla naa la sama live. kay ci boppam wax naa ko ko ma ne ko sëñ Ablaye Diop xaas. invité am si la ah, loolu dina ma neex. parce que yàgg naa loolu gisuma ko. te gis nga toog na fi pendant trois heures de temps mu ngi xaar. sama sëñ bu baax la. Mm-hmm. voilà léegi nag cheikh bi. Mm-hmm. santal yàlla bu baax a baax ni lépp lu nekkoon ci yow yàlla dindi na ko. waaye delloo sil sa xel ni kat waajur bi ak lu mën a xew ci kaw suuf ak lu mën a am ci kaw suuf jàppal ni lu fi waroon a jaar la jàll na gasal ba mu xóot suul parce que même bu dee dëmm bu dee jinneeg bu dee rabak bu dee malaakaak bu dee lépp sa waajur la te la mu ko wokk wokk na la te nit ku baax nga man bi ma la déggee dama dégg benn ku bi dafa dugg sa kont fekk la fa ngay alxuraan rek ngay dégg kon doo nit ku bon mm-hmm. amaana sa xol rek moo naqari waaye man maa lay ñaan ngir jëmmi yàlla ak yonent bi ak kóllëre gi yàlla boole ak Californie mii lépp loo jàppaloon sa waajur nga taxaw ni carrément sa waajur la yaa ngi koy jéggalu ci kanamu ñépp te xamal leen sa yokkute la sëñ bi dogguma la sax dogguma la sax ah. moo ah. tey jii mm-hmm. moo war a def la tu dem fekk ji yaayam sax tuubal mm-hmm. bu ko yaayam fekkee wàcc na parce que yàgg dee dafay am bu ko yàlla waraxee mu xam ne yaayam ko war a warax. parce que boo ko ci dunya moo ko lekkaat c'est tout. déedéet déedéet sëriñ. may ma may ma man maay wax li may wax ma ne. may ma xaaral waaw mhm. waaw gis nga gis nga gis nga gis nga man. Mhm. suma yaay ba ilaa yow mi diin dama ko ñemeetut ñemeetuma ko. waaw d'accord naa parce que xam nga lu tax xam nga lu tax. waaw man man dafa am foofu ne dama comme ni nga ko waxee rek man alxuraan lay toppa dëgg la dama dee xool si alxuraan bi li yàlla di wax si waajur. Mhm. ma jël suma waajur teg ko foofu. Mhm. cheikh bi noo tudd ma xam ne waaw live bi la yow dinañ wax maa ngi sa numéro bi yaa ay at. <laughs> waaw d'accord léegi da nga wax bu am solo. danga nga wax bu am solo ma dégg ko man dama laa comprendre bu baax a baax. Mhm. comprendre naa la de. comprendre naa ah, ah. may mën a parce que da nga taxawee benn position may mën a taxawee benn position mooy. parce que waajur kali. lu mu mën a mel sa waajur la mhm. tey bu la bind indi woon àdduna xoj la tey doo tax bay nettali live mhm. waaye lool du mun a am ma wax la foofu na dogguma la loolu du mun a am gis nga gis nga bakkan bakkan gis nga bakkan loxo yàlla nekk gis jeex na doom bi nga xam ne dafa war a juddu egga fi mu war a comme li soosey dañ ko dee wax ñu ne siisee mi ñanta kokole ñu ne comme ganaar bu ko war la boobu paaka du ko gis voilà léegi mhm. olof day wax ne xaalal olof day wax ne dañ dama a ñu ne comme ça yaay si la bëggoon rey daf lay rey depuis sa jamono xale man loolu wax bu hmm. yàqu laa ko jàppee comme li ñuy hmm, la parce que doom bi nga xam ne yàlla daf la ko jox waaw kooku su fekkee warta dee si jamono xale bi mu ko ne da nga koy xooj xam nga xale rawatina sax xale su xale su nekkee xale du am jikko waaw kon ku amul jikko doo mun a ñëw ba naan ne kii sax dama ko war a rey nii ak nii waaw waaye su doom bi demee nag ba am jikko si fof hmm. ngay doga a jógee ne léegi dama koy wara a ray rey ay sa yaay sula juroon sula su la bëggoon rey daf lay ray loolu wax bu yàqu la loolu bu ko war wara dindi bam mu léegi léegi cheikh bi léegi cheikh bi wax nga wax bu am solo man tay lo wax rek nangul na lako amul na ma nangul lako hmm. parce que kali nit ki famu tollu mo fa tollu hmm. man xam-xam lay wax nag nekk waxatusam daa dund lu metti Kaliphone bala ma jël suma mag bi mu ngi ci souf mu ne nga jël ko xana la def ci liyam bi am xana tiktok ni mom bi wa ok léegi xaaral ma tuuti s'il vous plaît. Euh, participer ma wàcc. Euh, waaw xaaral ma jëlaale suma kaamil yi ma ñëw. nga def ko laaj ñu taal ko. ah jël suma kaamil. taa Zeyna waaw xaaral ñu wàcce la pare ok euh, kan la kan sama bi mooy kan. donc sa sœur ko mu jël la. bindal c'est moi rek ñu gis la. xaaral mu xaaral mu comment xaaral mu comment dinaa la. xoola mu ne moom yaayam duma la. ah non kii sa sœur bi na commencé. Maymuna bàyyi wax boobu ba ci kanam tuuti dégg maa la ko ñaan. Eh, nu mu tuddati kii kii yow mi borom photo bi bu dee yaa ngi ci live bi nee na chez day si kan est-ce que mu ne xanaa la xanaa xanaa. Eh, yéen ñi nekkul yéen dimbali leen ñu waaye dañoo dañoo dañoo nekk si si si liggéey yéen it leen di naan c'est moi c'est moi fekk du yéen ah jàpp leen si waaye ah bu leen saboté. waa li ma lay ñaan tam nga taal moom mu taal vidéo ma taal vidéo man ñaari kaamil laa yore nii. non après bàyyi lu mu yëg rek moom mu wax. lu muy kii euh, euh, ok santé Youga bu dee am na loo bëgg participer vite fait après naw mi ñëw comme sa ñu bàyyi leen fi ñoom. fan comme ça yéen ngeen na kilifa yi ñëw ñi ma tudda seen tur la ñooñu laa soxla. Preti boo ko gisee wax ma kan la. Euh, yoga bisimilah ñëw loo bëgg participer vite fait parce que live bi nee naa Gambien yi rek laay jël tey sax mais yow. mu ngi nii ñëw naa mu ngi nii. bal texte lifin na comment na mu ne nga jël ko mu ngi nii xanaa la fa def. mais gisuma xanaa fi ah yee gis naa gis naa xanaa je je la xanaa. waaw c'est xanaa kay ana <laughs> ah, defal demande. bu ngeen ma mën a yëgalee xanaa bi waaw xanaa gis naa merci xanaa ngi ñëw ok xanaa xanaa asalaamaaleykum Kaliphone xanaa ñu lay fay mbaa yàqu ñu nelaw yi euh, <laughs> waaw bisimilah yow ak Pretty ak waa si kaw yen a bokk ndey ak baay oui mais waa ji jarut muy denc turam dèjà maa joor jaxate la joor la tudd. donc jarut muy denc turam. ok yéen a bokk ndey ak baay ok léegi moom gën nga lu mu jotee expliqué ci live bi ba mu dooree mooy maanaam moom pour ñii nga xam ne ñu ngi doon naan kali rek kapit lu xew dañ leen di waxaale lu xew comme ça kiy déggaale mu ñëw si. waa ji si kaw ak xanaa bi ak preti ñoo bokk ndey ak baay. waa ji nee na ba ñu nekkee seen biir kër fële ca Gàmbi yàlla dafa dogal doole bëriwul. si digënté bi mu xamanté ak benn nasaraan ku jigéen tubaab ba mu ak tubaab bi tubaab bi ni ko ñëwal ñu dem Europe mu ne tubaab bi bëgg naa dem Europe mais situation yi sama yaay nekkee mënumaa dem Europe bàyyi ko fi parce que kër gi lu yàlla xam doy na tubaab bi si la góorgóorlu peut-être jox ko lim koy jox mu dem mu jënd kër ba mu jëndee kër daal di tabax kër gi kër bu bees tàq daal di jëlee yaayam ci néegu baraag yeeg néegu ardoise yi ak sëram yeeg frèram yi daal di leen andi ci këru étage bi si noonu nag mu ne xaaral dem Europe daal di dund happiness lu ma am ma daal di yónnee sama njabal si noonu mu ne ba mu ñëwee ba Europe si la commencé di feebar biir bi di métteeg yaram bi di métteeg ainsi de suite mu nekk si ay jafe-jafe si la toog ay jamono mu ñibbi si dem ba mu demee daal mu toog jékki-jékki rek mel ku gént wala ku xalaat que lii am na sarax bu mu war a génnee bu ko génnewee rek coono yi mu nekkee dina ci moom si la daal di def sarax boobu mel ni am lu koy orienté ne ko demal béréb sàngam ci biir kër gi boo ko gasee di nga fa fekk ay mbir yuñ fa suul boo demee si mbir yooyu ñu suul boo ko génnee di nga nekk si jàmm si la ñëw commencé di creuser ba mu creuser wan nañ leen image yi si la génnee ay béjjén nag ay xaatim ak ay kenn xamut si lu ñu jot a envoyé. donc si noonu wane ko rek wane ko wane ko wane ko waaw dañuy expliquer garaawul photo dinañ ko wane pour ñi di déglu rek léegi si la jéem a won xaatim yeeg yooyu yaayam si boppam bi ko jur gis na xaatim yi ak béjjani yaayam di ko man ngay xaawi sama sutura te moom mu ngi doon xaar yaayam ne ko waaw béjjën kan moo ko fi suul ainsi de suite mais yaayam daf ko ni man ngay xaawi sama sutura si lu wax si noonu si la dem ci frère bu mbokk ak ndey ak frère bi yëgal ne ko lii de maa ko gas suul ko mais sama yaay moo ma ko sant ak sama sœur bi nga xam ne moo tudd xanaa dugg institut ci diggante bi tamit seen papa dafa gaañu woon mais am na beneen paa bu takkoon seen yaay yëgaluñ ko ko woon te moom mooy taawu kër gi ba mu ñëwee si boppam la yëkkati paa boobu sax ne génn kër gi daal di koy tëbal. jamono jooju nag mu nekk ak problème ak famille bi ba yaay ji benn moment dellu ca kër gu mag mooy baraak ak zeng ya daal di quitté kër gi nga xam ne mooy kër gu alhamdulilahi ba donc si noonu coow li na kur ba si xanaa bi xejatul foofu si lu mu jot a wax daal di dem Espagne coow li daal mooy moom expliquer na yaayam daf ko buggoon toroxal parce que am na juróomi jabar fase na leen yaayam moo ko def muy fase jabar ji jabar ji boo xoolee si lu ñu yàq si ëmb si kër gi moon na vingt ëmb loolu yëpp liggéey yu ñu def si kër gi moo tax ku fa ëmb ëmb bi day tuuru loolu yëpp nag daf ko chargé yaayam ak sëram bii di xanaa mooy ki ñu taf fotom coow li daal joojo joojo joojo jaxate mu joojo ñoom ñu bokk ndey baay léegi joojo yaakaar naa ni ñi jotoon a bañ a déglu déglu nañ joojo ubbil sa micro grand frère waaw doguma la doguma di wax ki ki du jojo de man ñi ma ñi ma tumal ñoo ñoo la soxla xam nga lo seexat nit di wax xana du jojo du du ki ñu tax ni du jojo de déedéet du jojo no californe du jojo rek jojo la rek joojo ah, mais mais yene bokku rek jojo la ba tey ah? waa mo ma wax la non yene bokku ndey bay wa wala wi wi ñoo bokku ndey ak baay wa ok de bokku ngeen ndey bay rek bismillah legi legi tejo xara ma xaaral ma expliquer xaaral ma expliquer wa xara ma expliquer wa ki ñoo bokkan day ak bay ki mo topasi si wa waaye moom da ngay gis ne bi may tabax kër ak li mun a am yëpp yëpp yëpp moom fekk ko fa moom li xew yëpp fekk ko moom jamono boobu tukki na sëy na dem na France defe naa jamono boobu sax moom dafa yàgg sax moom li yëpp ko fa ñi mu fa fekka ma limal la ko ñi mu fa fekka mooy moom moomu ngay wax ak moom bi moom su ma bi bi ñu toxu si kër sax fekk ko Gambie. moo nekk kii xanaa xanaa léegi léegi grand frère léegi xaaral sànq ba léegi amoon nga fi parole bu bari ñu ngi jégalu tëjal micro bi léegi li nga jotee expliqué mooy li ma récap léegi

dégg li nga ko récapituler léegi nii voilà comme kër gi nu mu ko waxee wii kër gi moo ko jënd ñu dem foofu et comme nu mu ko waxee man lii yëpp fekkuma fa man nekkuma woon foofu maa ngi maa ngi doon say Sénégal après foofu laa jógee ma ñëw fii nii fi ma nekk ni léegi donc voilà euh, waaye moom jógut rek mu am mu am kër wala mu am xaalis nii balaa muy am kër wala mu balaa muy am xaalis am na jabar jabar boobu noonu kan moo ko doon dundal jabar boobu noonu su fekkee yaayam daf ko bañ ci lu mu wax jabar boobu noonu kan moo ko doon dundal ak njaboot bi njabootam kan moo ko ko doon dundalal te te boobu noonu fekkut sama papa mu ngi dund parce que sama papa gaañ na depuis depuis depuis depuis mu ngi ñu bàyyi ñu ñoom ñëpp ñu ngi ñu ngi débrouiller ñun moom waxatuñ parce que ñun ay xale yu ndaw lañu woon. donc moom ñu ngi ko bàyyoon foofu mu ngi débrouiller nekk si ay garage si tubaab yi di dem di ñëw sama yaay moo doon xëy suba teel. mu yer ñeen paan yi wala palaat yi suñ bopp yi ñun ñu jóg ñu dem jaayi ñu ñëw ñu dund te dund boobu noonu jabaram mu ngi si biir jabootam yi mu ngi si biir moom si boppam mu ngi si biir moom tey la am moo tax mu ñëw tey mu ñëw naan mu ngi am lu muy wax te sëriñ bi muy wax moom moo gën a bëgg sëriñ dem na fii nii ba ay Mali fu mu dégg sëriñ mu dem foofu noonu donc dafay tab dem tapale sëriñ yi sëriñ yi retourner bi si moom travail bu bon bi si moom donc mu ñëw di ko tuumaal ay nit sinon man toog naa fii nii eh, mu dem ba Mali xamu foofu noonu kenn xamut Mali Mali ban làkk la ñuy wax parce que parce que ay saraxule lañ donc mu dem foofu noonu jël foofu noonu benn nit kooku su ko envoyé vocal mu di ma envoyé vocal bi man man koy defaral ay tradition ki ko doon envoyé vocal bi moom xamut ne kooku man xam naa ko mu envoyé ma vocal yi man ma di ko defaral traduction donc après si laa ko ne man xam naa kii nii. lu tax ngay dem si kii nii sax ba naan ko kii nii dafay dafay def ay affaire tappaleeg yooyu noonu mun naa lekk sax xaalis après mu naan kooku kooku noonu mu liggéeyal ko moom après mu fay ko ma ne ko ma ne yow da nga dof yow naka ngay demee nga ne kooku noonu mu liggéeyal yow nga yow nga fay ko après xanaa da nga ko bëgg a tappale donc xam naa ne tappaleem yu sew yooyu noonu loolu la def ñu jël liggéeyam tu tourné ko si kawam ba pare mu ñëwaat naan nit ñi la xanaa yow nit mun na sa yaay mun na nekk doomu ba pare te yow doo nekk doomu laaj naa rek ah wax nañ wax rek ci diggante ak yàlla ku nekk na wax ci sa diggante ak yàlla sax yaay dina nekk dama yow nga rëcc xëy na mën nga ko bañ a doon si moom xëy na sëñ bi dina si dina ko leeral Ablaye Diop xaas la kon waaw sëñ Ablaye na nekk dëmm fekk moom nekk dëmm parce que dëmm moom ah, moom mënta ne waaw sëñ bi leeralal sëñ bàyyi ñu déglu Ablaye Diop xaas sëñ bi jox naa la question bi waaw sëñ Ablaye leeralal ni foofu Kelly. non soxna si na def. maa ngi fi fay naa nuyu naa la sëñ bi. jërëjëf eh, xam nga xam nga nag da ngeen dugg ci sujet bu bu xew a bu xew a danse. Mm. sensible teg ci. parce que dañuy faral di wax ni boo ko tuumaalee nit te doonu ko moom këram këram ba mu war a tëdd sawara yaa fay dem tëddi kon xam nga tuuma jooju rey na kon Kali waxee wuñu foofu man chaque fois nag damay génn tuuma bi man waxuma moom la wax ma du moom. man daal li ma ëppal solo ci ci mooy li Kali wax yow ex li nga expliqué dégg nañ ko bu baax a baax a baax a baax waa ji ni mu expliqué dégg nañ ko li sa rakk bi expliqué dégg nañ ko li Kali expliqué dégg nañ ko Kali li mu tontu mooy wax bu am solo xam nga nag ci wàllu doonante côté boobu Kali mun na nekk mën nga koo jël mën nga koo bañ a jël bu dee ci wàllu baay doo ko doo ko jël bu dee ci wàllu yaay mën nga koo jël te dañuy aayante kon côté boobu bokkul liy ëpp solo rek. mooy duñ ci xam naa nag nit ñi dañu bëgg nga jam yëf ya ca kii ba te am na ci loo xam ne ñun du suñu cër. waaw waaw wax dëgg yàlla. duñ a wax defar mooy sa mooy sama cër. Mm-hmm. Euh, soxna si. oui. dégg naa la nga wax wax bu am solo nga ni ko bi nga demee Mali tradition yi mu doon def dèjà yow la ko doon yónnee kon xam nga ni seen diggante jàmm ak salaam rek a fa am. ñun ñëpp jàmm ak salaam lañ jàmm ak salaam moo nekk si digg si ñëpp. waa léegi lu tax léegi yéen comprendre leen ko xam nga lu tax ma bëgg ngeen comprendre ko nit dina toll moment boo xam ni yàlla mi ñu tiim ak yonent bi doo ko topp parce que la muy yëg moom moo koy yëg li muy dund moom moo koy dund te yéen a ko wax yéen nag par exemple moom man de jàpp naa ni moom ku baax la jàpp naa ni yow mii ku baax nga jàpp naa ni sa rak ku baax la ndax nit buy défendre waajuram rek ku baax la ndax waajur moom moom mii dégg xam na li may wax yentu yàlla Muhammad wax na ni même bu dee day naan sàngara kali bu dee sa waajur bu jigéen da mën nga jëndali ko nga mu naan. bàyyi la maa a waxte. kon xam nga ni kon waajur bu jigéen kali lu am solo la. léegi nag cheikh be ku baax a baax la moom waaye sëriñ bi. sarak bi du dégg li mu wax. man man kay maa ngi déglu ba ba ngeen pare man kay du ma wax. déet yow da ngaa baax yow da baax trop macha allah. sarak bi waaw déedéet waaw xam nga lu ma bëgg a ñi nga xamante man ñooñ laa joxoñ ma ñooñ laa bëgg ñu ñëw ñooñu ñoo fekkee. ñooñu jarul ñi ñëw ñooñu jarul ñi ñëw ñëw mooy ñëw ku mënta ñëw na kenn du ko forcer mu ñëw. du ñëw naa maa lay dégg. waaw maa lay yow man baax a tax may wax ak yow parce que dama gis ni ku baax nga. déedéet man baaxaay bi sax loolu laa bëgg a tege man dama bëgg lu ma wax pour mu leer man lu leer laa bëgg a bu maa ñëw fii because comme ni ngeen ko waxee. man suma waajur laa joxoñ. the man want him the man want you take him serious you know what I mean not you to know, listen I, to this rubbish that be, these two are talking. You see, that's let it, it be clear. Man, that's what I want. Dama bëgg ñi wa joxoñ na ñoo man loolu laa bëgg. waaye foo xamante ah, yow bi ñuy toxu yow dara fekkut la fa dara fekk yow fekke gis nga soo demoon ba ma def fekkut tamit bi de soo fekkut tamit dara ba pare yow yaa ngi nekk di wax ñu lay si suuf ñu na fekk na ma fii nii bi nga dafay tappale doomu haram la fenkat ñu koy déglu ñun bi ngay jógee ñëwee ñëw fii duñu loolu ñun fii we want somebody who speak proper proper wolof you don't even speak wolof da ngeen di fen that's it da ngeen di ñëw ak réew di ngeen fi fekk réew tamit. thank you very much. man li ma wax ma ne dëmma la dëmma moom lu mu gis loolu la gis yow gisuloo doo leen ko forcé ba pare doo leen mun a ñëw fi ngeen bugg a def nit yi ñu yaakaar wala lu mu nekk di wax du dëgg yéen a ngi ñëw fii di ko attaqué. in the sight of the law in the sight of the indi side of the fii nga ñuy fekk de ñu ne la ngeen indi ndéem bi la bi ngeen ne kooku dafay liggéey man kay ma wala broda may ma tuuti broda may ma kay ma wala hmm. dara sista man nag su la neexee ngeen ajal ma man soo leen ajee di ma saaga tiktok bi yëpp xam nañ ma waaw hmm. ñun la ñu kale caga o wa eva di nga sa bi muy liggéey di def xaalis man noonu ma def suma bi dafa ñëw ginnaaw baakuwee man ñëw ma baakuwee avion laa ñëwee fii maa ngi dëkk fii thirty years macha allah ku yàlla defal yooni yooni kanam amul fayda ba mu ëpp ma man fayda fii dégg la ñu nekk di wax dégg voilà dégg la ñu nekk di wax faalew ma suma euh, xarit yëpp yoonu gannaaw la ñu ñëwee waaye ñëpp a ngi liggéey waaye doo mun a toog fii ngay wane kii ñuy waxal moom mu ngi liggéey pour toppatoo yaayam seen mag dafa toppatoo seen yaay mu ne kër la jënd ah, toog leen fa yéen yëpp balaa ngeen tukki waaye fii dégg bi la ñu bugga that's it waa kay li nga fekk fii ku la fi gën a réew lii mooy TikTok nag dina am ay mag yi nga dinañu wax waa bu nice sàggal leen waaye soo di jaay réew di ngeen fi fekk a réew finis lu ma bëgg a wax papa papa yow baala ma waaw li ma bëgg a wax mooy lu ma bëgg a wax mooy man li ma bëgg a wax mooy même si si cadre cadre de ku fekkee wut hmm. mënut a seede kooku kooku warta wax sax du la dañ laa na génnal si biti ñun soxla wuñ la ki fekkee kooku la ñuy wax man nag ñi ma seexal man man om de tenue laa woon ñi ma ko seexal te ma joxoñ na ñëw ñu ñëw ñu tontu ma man lool laa moo tax may la sax taalal taalal caméra bi ñaari kaamil laa jël ni teg ko maa ngi nii yore ko suma loxo yaa ngi ko dégg ñoom ñu pour lan la ñoom suñu ma wédee rek ñu waat man tam li ma wax yëpp ma waat ko lu ko commencé A ba Z ma waat ma man loolu laa bëgg mu leer moo tax ma lee man ñi ma ñi ma joxoñ ñooñu laa soxla na gaa ñëw waaye koo xamante ne yow bi ñuy rédacteur bi ñuy yow fekkeewloo dara dara yow génn nga foofu lu ëpp ak huit ans fekkeewloo tous nga ne kooku dina seede. man loolu foofu laay wax sa waxam bi sa wane na ko olof déggu ko. ay yow kooku eh, kii génn kii fay ana ana prêté na joojo ñëw na joojo ñëw na ndey tumbu ya ñëw na loo ñëw. jël ma jël ma defoo sa demande dafa demande. na ñooñu ñëw man ñu laa soxla waaye. ok ma tuuti may ma tuuti santé go yogo loo si bëggoon a dolli vite fait prêté dafa sant yoga ubbi sa micro s'il te plaît. auzu rajiim Kali lay nuyu. bisimilah lay nuyu. sama frère bi si kaw laay waxal. jërëjëf euh, maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax a baax a baax. Euh, di la ñaanal jàmm te ñaan ci yàlla indi jàmm ci yow itam. amiin amiin yaa rabbal aalamiin seen famille bi yëpp. seytaane nag dafa bëri doole frère te dégg naa ni ma déggee nga waxee. ku bëgg sa yaay nga ndax neen nga amuloo du sa yaay. Mm-hmm. des fois nag nit dina toll moment boo xamanteni ni ni seytaane dafa bëri doole dëgg la Afrique am nañ ay réalité mooy mm-hmm. mystiquement ñu dem attaqué nit mystiquement dem liggéey ko yàq ko da nga gis nit ku feebar sax di waxtu di tudd turu nit fekk ko muy tudd sax xamul dara parce que seytaane dafa bëri doole. am na ci ñaankat sëriñ ji koy def yoo xamanteni ni façon bu la ñuy utiliser am na ñuy utiliser ay turu jinne ngay dem ci ñoom ñu ñaanal la wala ñu duggal wala ñu dugg nit di la waxloo loo yenn yi mais yàlla ñett la bind doomu aadama jinne ak malayka doomu aadama mooy ñun donc soo bëggee ni nit sama yaay sama yaay dëmm la day lekk man de loolu gëwuma ko ci lislaam ndax man jullit laa waaye nag seytaane mun na jàpp ni man dama yaakaar ni rek frère ku la dégg xam ne duñ koo bon ndax ku tabax ko dugal ci sa famille wax wax ji nga wax ko sa yaay bëgg nga sa famille mais seytaane moo la jàpp ma lay ñaan yàlla rek en tant que frère nga delloo si waat sa xel en tant que sa sœur nga delloo si waat sa xel te xam ne àdduna amul solo yaay du morom dala amul neuf juróom-ñeenti weer dëgg la nag c'est pas une raison que lu ko neex def la wala lu ko neex wax la non non non loolu yaay ju def doom lu bon bu kere yombal xiyaame da koy layoog moom doom ju def lu yaay lu bon it da nga koy da nga koy da nga koy da nga koy layoo bu yombal xiyaame mais nag dafa am loo xam ne yaay dafa xaj ci doom te doom xajul ci yaay mu nga moytu ko yaay dafa am solo ci nit nga bàyyi ko def attention te xam ne àdduna dara jaru ko lii dara jaru ko. seytaan def ba li ngay wax yëpp ne. li ngay wax yëpp ne sa yaay daf la koo def su fekkoon ni yow yàlla bind na la ngay nekk nit ku mu seetaan kon néega nii kon doo toog di ko nettali li nga fi nettali yëpp nee nga dañ laa wan ba nga dem sulli ay ay ay gàllaaj ay ay bi xaatim ak ay bëjjëna yu ne nga wax ak sa yaay mu ne la bu ma weer bu dee loolu yëpp am na kon dangaa waroon sant yàlla bu baax te xam ne lañ lay defal jàllut waaye du ma yow du ma agsi fii nga agsi waaw mais doguma la doguma la waaye mhm. comme comme man suma yaay bi ma jur mhm. man gis naa jafe-jafe loo xam ne yow bi ma koy def bi bi ma koy génne yaa ngi toog waa dégg naa la frère cette frère maa dégg naa la may ma rek sa doguma la sax doguma la waaw léegi man kooku laa yaakaaroon pour mu jàppale ma kooku nag mu ne talut ma nii la ma def ne talu ma la du ma si wax dara frère xaaral ma expliqué la xam nga nit judd na gisul ndey gisul bàyyi te mu ngi dund ci àdduna bi nit dem na bay wasin doomam yàlla jël ko bàyyi fi doom ji wala ñu maltraitance am ñu toppatoo toppatoo wax mu génn àdduna bàyyi fa doom ci dédéw mi day dund yàlla ba mu la sàkkee yàlla may na la xel may na la sa cër yëpp yaa ngi màgg ba toog nii di ko nettali kon yàlla même bu la sa yaay bàyyee yàlla mun na laa bañ a bàyyi bu lay nga nga a bàyyi sa bopp mais du ma accès yow fii kenn mënut ta forcer yaay du yaay yëpp ñoo am instinct maternel instinct maternel waaye yu bëri nag am nañ ko mais du yaay yëpp malheureusement du papa yëpp ñoo am instinct maternel mais yow mi nga xam ne yaay doomu aadama yaay doom yaa war a moytul yenn li ñi ñëpp say sœur lañ yaa ñoo xaj ci yow waaye xajoo ci yow yow yaa leen mag yaa leen waroon ëpp expérience en tant que góor ñoom jigéen ñi ñoo waroon toog di defee nii waaye yow nag du ma la du ma la dama lay comprendre parce que dangaa toll ci moment boo xamante ni dangaa nekkul mën na am dañ la attaqué mystiquement mën na am ay jinde moo la dugg lu ne mun na am mun na am ay liggéey yu ñu la def parce que xam nañ ne Afrique am nañ réalité boobu dañ koy def ndax am na sëriñ suy jàng lu baax di jàng lu bon mi ngi ci Afrique am nañ ko ñun Afrique xam nañ ko mais nag da ngay delloo si waat sa xel ci yàlla di jàpp di julli yor sa kurus di wóorlu boo sellal sa xol bi xol bu setee ngay jege yàlla di jàpp di kurus di wóor def lu baax bu yàgg kenn lu ko leen waaye mën a defal néew ma duñ la jàpp ndax Muhammad alayhi salaam jàppoon nañ ko waaye bu dee cent pour cent cinquante yi quatre-vingt pour cent yi du la daal nit dangay sant yàlla delloo si yàlla sa xel te xam ne àdduna amul solo bi dara jaru ko yaa ngi yor ay doom day day dem fu ne internet ci dugg dootul génnati seytaane nag dafa am doon ndax lu problème bu amee fu ne lañ koy réglé dañ koy réglé tribunal quartier yi ba même euh, euh, euh, imaam yi dañuy réglé problème ku mel ni kalimi isom la même chose baax na nga génne li ci sa xol wax daf lay daf lay soulager mais nga delloo si waat sa xel rek ma toog xale lay ut man loolu yëpp leeruma moom système mais man mënuma wax lu ma xamul du ma wax génne sama gémma bi di wax dara lu ma xamul ndax yàlla moo ma tiim ragaluma lu dul nag yàlla yàlla rek laa ragal kenn doomu aadama bu yàlla bind war ngaa gëm sa bopp ne yàlla moo la bind bu ragal kenn sista sista man suma yaay suma yaay moo a wax ne moom moo a wax ne mu ne yaayam duma la man suma yaay moo ma wax ne moom yaayam duma la baala ma li yàlla yaayam xaw la tudda moom boobu si wax bi mu ngi duga di dépassé suma mag te man yooyu duma si duga mun na am kooku waxam bu fekkeew ma ko waaye maa ngi si suuf bokkul si da si génna waaw moom na si génna depuis nit ñi depuis man ma ne cuk fii moom mu ngi na fi génna na si génna parce que su dul loolu man ak moom ñoo si des parce que man maa la gën a réew maa la gën a ah, capable maa la gën a coupable maa la gën a virgule eh, bàyyi leen eh, man tax damay génn man it génn naa man it génn naa kooku bàyyi ko moom moom dafa am droit bu génn ma ne su la neexee nga génn. kali kali bala ngeen a génn yéen yëpp may ma ma tëj rek. non déglul déglul. te sëñ Ablaye Diop à quatre de temps dafa war a tëdd tam ko war a yeewi. waaw damaa a ma tëj rek. boo gisee xaaral tuuti rek. Euh, ma wàccee pré kii naw mi. xam nga fii hmm. la plupart sax nit bu waxee ba pare dam koy wàccee du ma ko fi bàyyi mu toog. mais boo gisee ma mm. bàyyi ko boobu ba léegi rek pour muy participer mais bu demee man nekkuma fi woon muy xas wala yeneen waru fi di xas kenn problème bi lan la comme lu yoga wax la ñu xool lu mu rafetee loolu mooy problème bi buñ fi xas kenn parce que ñoom ñoo bokk seen famille bu ñu jëlal kenn mm-hmm. paar buñ fi mm-hmm. jëlal kenn paar ku góor ki li ko dal mën na am daf ko dal mm-hmm. dafa traumatisé mais man dama jàpp man en personne depuis au début wax naa leen ko yaay hmm. munul jur doom ba pare di ñëw di liggéey doom pour doom di torox pour doom di dof pour doom di yéen ma gën a xam man gisuma hmm. yaay hmm. ci kaw suuf yaay peut-être def na garab yooyu peut-être pour aaroon la doom bi ñëw ubbi loolu yaakaar ni yaay peut-être da ko doon yàqal fekk demeewut noonu loolu yëpp mën na nekk lu gën lu baax rek mooy xool nu ñu retrouver parce que xam ne yaay bu dee caga yaay la yaay bu dee dëmm la yaay la yaay bu dee sulaar la yaay la lu mm-hmm. mënti am ñun du duñu ne yaay ne ñëw baalu ak doom. doom moo war a dem ba ci mm-hmm. yaay ne yaay baal ma àq si lu ma la wax lépp lu ñaaw. yaay mm-hmm. tamit du jàppal dara doom dina ko xale nga xam naa ne da nga réeroon saytaane duggoon baal naa la sama doom nga. ngeen nekkat ci jàmm moom ku góor ki. mu fàtte lépp loo xamante ni sama yaay daf may lekk ak daf may naan sànq dama wax sama biir wax ma ne la man bu doon man man. Mm. may dem toog ak sama yaay uuf ak moom bu ma lekkee ma xam ne moo ma mm. àndoon si duniyaa moo ma lekkaat mm. bu doon beneen nit mën naa tiit si beneen nit boobu mm-hmm. beneen nit bu ma bokkut ak kër wala bu dëkk beneen diwaan mën naa tiit si kooku mais sama yaay bu ma andi si duniyaa ba may liir mu may toppatoo di ma fobeereel guddi mhm. may dem ginnaaw kër yaay papa di mhm. nelaw bay biddanti yaay di toppatoo di tette di nenne di mhm. kii ba nga judd ba màgg ba toll tey li ngay tollu ba dem am jabar am lépp war nga fay sa yaay lu ne lu dul peut di ko tax ay dëmm wala di ko andil leneen ak leneen Kaliphone sax mu sotti dafa may ma tuuti man xam li may xam naa ko <laughs> dañuy wax a tant que góor a góor bu caaxaan jeexee dëgg fi des xam naa ni mhm. du am lu ko neex. Mhm.